indi leen ci suñu biir quartier bëgg leen waxloo au nom de notre quartier te fi ñu ko doon defee ak sama kër benn la ma génn taxaw sama bundu kër di wax ak journaliste yi pour xamal leen ni ñii dëkkuñu fi tey bu fi waa koñ bi génnee léegi daje defee ñoom incident mën na am ma di ko wax benn benn vigile xaw ma vigile la xaw ma nervi la ma daf ma bëmax ba ma toog je me suis senti frustré moo tax bi mu ñëwaatee di ma teg loxo ma ne ko boo ma tegee loxo ma nangam taat léegi nag ka bëgg a génne nangamtaan rek lay génne saaga bi lay génne mais ñun du ñu ay saagakat ay nit du ñu yar lañ ñi nga xam ne peut-être dégg nañ ko te mu déranger lañ maa ngi jégalu ñëpp ñu li ñuy xeex nii mbiru santé publique la affaire pollution ñi ciy profité nag di partager ay messages yoo xam ne dañu bëgg a profité wane loo xam ni euh, lu ñaaw la ñun lu rafet rek la ñuy def du ñu ay saaga du ñu cautionné kuy saaga mais benn moment.